ah électeurs yi ñu ngi ñëw di voté ah ñëwandoo en masse nekk ci bureau de vote yi di voté wax dëgg yàlla depuis suba ba léegi nag dégg ñu fi benn coow xam nga gars yi ñu ngi respecté seen ay rang ñu ngi respecté li nga xamante si ni tey mooy norme yi ñëw nañ voté ku voté ba pare da ngay ñibbi gis ñu fi kenn kuy joxe xaalis pour euh, voté lal sama candidat gis ñu fi kenn tamit ki nga xam ne dafay nekk pour roube donc dañuy dem ay quelques yi nga xamante si ni tey ay leader ay leader lañ tey ah nekk ay euh, jàmbaar ci seen parti politique dañu dem jël bu ñu paree rek daal dugg ci euh, bureau de vote yi xool vote bi nan lay déroulé incha allah rabi. woon léegi léegi ah te nag ñu ngi taxaw ak ki nga xamante si ni tey mooy euh, Balla Diouf di euh, responsable politique Benno Bokk Yaakaar la grand ñu lay nuyu. merci fay naa la. donc tey nan nga gisee li nga xamante si ni tey mooy vote bi ak élection yi ni mu déroulé fii ci école PAF. merci beaucoup bon fii depuis le début li ñu gisee vote bi franchement xel dal na ci quoi parce que France depuis huit kii bi nañ bureau de vote yëpp te pratiquement kii notuñu fi benn incident le vote se déroule normalement nit ñi ñoo ngi voté seetlu nañ tamit wax dëgg fa affluence bu am si si vote depuis le début vraiment. donc mën bureau de vote ñoo fi nekk. waaw fii nekk. am nga ay représentants yu la fa teewal wala amu ko. pratiquement li jot seetlu moom am na ay yoo xam ne amuñu ay représentants parce que sur dix neuf candidats booy xool bureau yi pratiquement. ay dizaine de dizaine de dizaine de dizaine de siégeants ñoo fay nekk kon cela veut dire que am na ñoo xam ne ñu représentant. donc yow est-ce que euh, est tey am nga yaakaar ni Benno Bokk Yaakaar war na mën a gagner fii ci école PAF. bon ñoo ngi am yaakaar donte nag bon gis nañ ni bon xaw na dina xaw a nuru lu seere parce que boo boo seetloo deux deux précédents yëpp dañ ko perte puisque dañ ko perte nag bon. xam nga doo mën a tëb ne dinañ gagné mais jot nañ liggéeyaat nag ci diggante bi loo xam ne nii xam nañu am loo yaakaar quoi surtout ak candidat bi nga xam ne moom lañ am muy Amadou Ba nga xam ne ñu wóolu nañ ko am nañ yaakaar daal tey unité 5 si centre bi du yomb quoi waaw donc ñu ngi lay jaajëfal baax a baax grand Balla ok merci beaucoup jërëjëf ok jaajëf salaamaaleykum sëriñ bi ñu ngi lay nuyu maa ngi leen di fay bu baax ba yaa ngi si jàmm maa ngi si jàmm bu baax waaw ñu fekk la fii tey nga nekk euh, électeur di rang tey di fas yéene def sa devoir de citoyen donc tey na nga gisee euh, centre de vote bi ak li nga xamante si nii noonu la vote bi di déroulé waaw maa ngi sant yàlla di gërëm euh, waa unité cinq yëpp ñu génn en masse ñëw tranquillement di def seen euh, seen euh, vote dans le calme nu ma ko gisee moom yëf yi jaar na seen peut peut-être dafa am tuuti benn anomalie bu si am am na ñoo xam ne bu ñu ñëwee parfois dañuy am seen fu ñu daan voté dañuy ñëw ñu ne seen tournée fa loolu am na parce que am naa si benn cas benn ñaari jigéenu ma si gis yoo xam ni daan nañ fi voté mais tey ñëw nañu xool seen numéro fekkuñu fa seen seen tour mhm. donc boobu pénalité am na si ñoom mais à part moom le vote se déroule dans le calme quoi et puis dans la discrétion. ok donc am nga am nga yaakaar ne dina dina jeexee tamit ci calme quoi. non ni ma ko gisee ni dina egg si jàmm incha allah parce que ñëpp ñu ñëpp a tey ñëpp si nangu pour vote bi tey et puis ni ma ko gisee daal tout le monde est serein pour. Euh, une bonne déroulement de du scrutin jusqu'à la fin quoi. Mhm. nu ma ko gisee waaw. ok jaajëf ñu ngi waaw yaay booy yow lan moo nekkoon sa problème. man de sama problème mooy damay woote chaque année fii laay wote unité cinq bureau 2 numéro 2 bureau 2 waaye wote yi passé yëpp fii laay fiñ ma yóbbu jaarume xaw ma fa. musuma sama tànk musu faa dëkk léegi tey ma ñoo di wote ñu xool lépp nee nañ ma yow dañ la transfert ku ma transfert xam nga man man bi ma xoolee léegi léegi nii gis naa école F unité 5 bureau numéro 2 mais est que nekkul tamit yow maanaam soit ci sa sa ci ñi nga xam ne ñoo la jege est ce que defaluñ la transfert yóbbu la yóbbu la yóbbu la feneen beneen région pour nga voter foofu wala loolu man aw kenn affaire kenn duma ko jox sama carte d'identité sama carte d'identité musul jóge jóge sama loxo bokkuma si ay lekkat mm-hmm. ay natt bokkuma si bokkuma si. yow élection élection locale ak élection législative yi passé fan nga voté wee. fii. bureau numéro 2 bureau numéro 2 unité cinq mhm. moo tax tey ma ñow donc nag donc lan ngay wax waa Sénégal ci lii nii. waa Sénégal nag lii lu ma leen di wax lii mooy sàcc dëgg dañoo sonn te changement la ñoo bëgg changement la ñu bëgg dañoo ay baadoole ne amuñu dara kuy feyeku cent mille nga nar a jël luwaas deux cent cinquante mille xam nga du sotti moo tax ñu bëgg a changement ceeb seer na. seer vingt mille francs loolu mënatuñu ko mënuñu ko suñu doom yaa ngi nii dañuy jàng ba dee duñu mën a liggéey man sama doom mu ngi nii am na bag 10 ans bagam sax mënul gën na. jërëjëf yaay ba ñu ngi lay jaajëf. Ah, voilà ñu ngi nii taxaw ak tey ki nga xam ne tamit euh, responsable la ci euh, Benno Bokk Yaakaar muy Idy la gën ñu lay nuyu. maa ngi leen di fay bu baax. baa yaa si jàmm. waaw ñu ngi sant bu baax a baax. tey nan nga gisee euh, vote bi fii ci école F unité 5 tey ñu am fi sept bureau de vote naka naka nga gisee déroulement vote bi quoi. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ndax eh, gis naa ni que déroulement bi ça se passe normalement quoi ndax ñi ñaa ngi ñëw. am na affluence nit ñi génn nañu woote nañu waaw te lépp a ngi jaar ci yoon daal amul benn rëq-rëq bi nga xamante ne mën nañ ko fii nemmeeku daal ndax euh, vote bi daal mi ngi déroulé pour le moment ci jàmm ak salaam amul benn instance bi nga xamante ne war nañ ko mën nañ ko noté depuis ce matin wax dëgg yàlla ñu ñi ñëw nañ yar ak teggin ñëw accom seen devoir de après ñu génn quoi ñaan yàlla lu des si journée bi aussi tamit yàlla na yàlla yëggaleeg jàmm ak daal mais ñu gis fi ay cas ñi nga xam ne tey fii lañu fii lañu waroon di voté école F ci ay ci différents bureaux ci différents bureaux de vote yi mais ñu gis ne dañ leen defal ay transfert yóbbu leen yóbbu leen yeneen bureau ñu ñëw ba fii war a voté mais gisuñu seen tur ci liste yi loolu tamit nan nga ko mën a expliquer quoi waaw waaw xam naa nag bon ko bi nga xamante ne man maîtrise ma ko bu baax a baax quoi mais gis naa ci ay cas yoo am na ñu ma signalé au niveau du bureau de vote numéro 7 ñoom fa lañ doon tàmbale di voté mais dañoo ñëw tey malheureusement fekk ñu fa seen tur quoi xam naa nag bon ay ay ay ay problème problème fichier lay doon rek wala leen ak leen quoi bon très sincèrement maîtriser wu ma ko mais la tamit xam naa ay erreur yu ndaw la rek mais yaakaar naa ne ay erreur yoo xamante ne warul mën yàq dara ci scrutin ci ci par rapport ak bi quoi ndax ndax loolu day faral di am daal day faral di am njuumte la rek bon te noonu lañ ko noonu lañ ko mën jàngat boobu lañ ci mën am daal. ok merci beaucoup ñu ngi sant bu baax voilà mbokk yi mi ngi woon noonu ah ñu ngi woon fii tey ci. Euh, centre de vote euh, école euh, F unité 5 tey gis nañ li nga xamante si ni tey moo fi jot am gis nañ fi tamit ay cas yi nga xamante si ni gars yi ñu ngi ñu ko doon signalé voilà comme kaaw euh, maire boobu te am na ñeneen ak ñeneen ñu bari ñoo xamante si ni sax bëgg ñu wax mais tam parce que ñoom leen métti ñoom leen naqari voilà donc nag li moo tax rek ñu doon wax ni naan képp ki nga xam ne électeur nga demal nga vérifier bu baax a baax a baax xool ndax yaa ngi ci fichier bi xool ndax fi nga daan voté ba léegi yaa ngi fa mais ah gis nañ mu demee doy na waar voilà doy na waar donc nag lii nag wax dëgg yàlla ñi yor wàllu élection bi ah, war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax donc bi ci des mooy di leen jox dig daje incha allah rabin fekk ci kanam tuuti fekk ngoon mu résultat yi génnee incha allah lépp lu ci war rek dañ leen ko toppal dañ leen ko jox ngeen am ko en direct incha allah rabin fii ci Jamono ji info ñu leen jaajëfal bu baax a baax a baax di jaajëfal suñu caméraman euh, euh, Cheikh Omar di nuyu Mountakha di leen ziar ñëpp salaamaaleykum wa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 nopp dalatu na ci jàmm bët gis jàmm nopp dégg jàmm gémmiñ wax jàmm ci jàmm ji il faut ko koy amee na leen pour xam lan mooy xew ci seen réew ci jàmm fitna sax dañ koy nëbb jàmmal ko ba ñëpp am jàmm